رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا exposition bi dañ koy jëmbal

sa ànd ak man si sopp yonent bi des na loolu nag bokk na si particularité tax jeunesse taxaw waaye bokk ak tous les membres COSCAS pour feeñal xam-xam ndax li fi xew yëpp si organisation moo xam si aspect organisationnel culturel spirituel même financier yëpp ñoo bokk tarbier ku nekk fan la orienté si ngay liggéey waaye wàllu xam-xam kër Seydil Hadji Malick luñ leen woo bu ci xam-xam génnee dañ ciy génn ndax xam-xam moo yor àdduna moo yor réew moo yor tedd ngay doomu aadama xam-xam ne bu ànd ak teggin moo tax loolu la ñu bàyyil comme patrimoine booleeg yeneen waaye lépp doole si patrimoine mooy wàllu xam-xam ndax nit bu xamul yam ak bàyyi ma moo tax ñu def ko cadre bi nga xamante ni jamono yi ñu tuddee exposition waaye daara lañ ko mën firee daara si dimension yu bëri moo tax ñu génne ay thèmes vraiment pour articuler. tënk njaboot yi li nga xam moom la tënk si njàngalam si téere yi jëlee ko ci mag ñi pour rek ñëpp mën ko ñu ñi ko ñu jotewul ndax bëri na njaboot ñi ngi si réew ñi bitim réew ñëpp a ñëw si gàmmu région yëpp soo représentées ici ndax am nañ commission enquête bu koy def chaque année âge yëpp ñu ngi fi waaye la mu tënk ñëpp amuñu si accès léegi ku yàlla may dogal nga accès fii si stand exposition la mu néew néew si li ñu préparé vraiment boo ñëwee fi ñu wecc ko ak yow

léppam daf ko jox yonent bi la ko wóor si miracle yi mu ne man ku ma feeñal sama miracle tooñ nga ma sama mujj sa waaye la ma bëgg ñu feeñal ko si miracle su ma koy nangu mooy teg ma teg sama tànk si sunna yonent bi salaatu du ma ko teggi ak cofeel bi ma am ci moom lañ ma feeñalal loolu leen luñ ma génneel man man man Maodo santu ma leen ko moo tax yonent bi lañu njëkk a feeñal valeur yi ànd ak juddam te da jikko dugg si bési gàmm fu mu jógee wax historique wax taarix bi ba tey mu egg si fii tey àlla ci Maodo waxoon wax nag ci moom stratégie bu mu teg ba yàlla dafal ko ndam ndax bu demee ba siw àdduna xam ko bu demee ba am cër bu mu am feeñal yonent bi moo ko may kon du ñu génn si loolu bu loolu weesoon ñuy wane nag kan mooy Maodo ndax nit la mu samp par nga xam dayu bi ak ampleur foog nga feeñal dimension ci samp loolu moo du ñàkk Seydi Hadji Malick feeñ ci ndax nit ki mën appréhender dimension li mu samté moy mooy Nabi sampal bu Yonent bi. waaw documentation bi métti na wul dans un premier temps parce que exposition ci ñaari volet la premier volet bi c'est euh, destiné à l'art waaw li ñuy jéem jël moy alcorane li ñuy utiliser comme source parce que nee na source yi ñett la yalla moy source bi njëkk Serigne Cheikh wax nañu ko ñaareelu source bi mooy yeneen bi ñetteel mooy alxuraan donc ben partie wu exposition bi dañ ko jagleel alxuraan comme source d'inspiration euh, ak source d'inspiration pour une société à visage humain waaw ak tamit source d'orientation donc naka lañuy fexé fexe ba alxuraan ñu fexé ba euh, mu jeexital ci suñuy jikko fexe ba feeñaat encore ci penc bi bu ko defee ñu am penc go xamné ay valeur ak ay jikko ñoko ñoko lal donc côté bobu dañuy jël ay alcorane yi reproduire ko sous forme de tableau d'art loolu ay premier volet bi donc bobu mo laaj yenn recherche yu approfondi yi manam yenn gëstu yu sore yi ben wàll bi nag metti wul moy ci wàllu affichage bi mooy yi ngeen gis production yi ñu def ci Seydi Hadj maanaam jaar-jaaram ak l'école de Tivaouane mu xanam yi nga xam ne formé na leen fi euh, te kenn ku nekk gox ga nga dem yaa ngi fa référence yaa fa représenté Maodo donc yooyu base yaa ngi fi données yaa ngi fi à travers yi nga xam ne mag ñi jiitu bind nañ ko waaye à travers aussi xasida yi nga xam ne mag ñi def nañ ko ngir jagleel ko Seydi Hadj Malick pour wan ñu dëgg-dëgg personnalité alors bibliothèque baa ngi fi patrimoine culturel baa ngi fi ah malheureusement nag dañ ci sóobuwul bu baax mais patrimoine baa ngi fi bindu mag ñangi fi téré yaangi fi lépp luñu soxla ci walu tariixa bi référence yaangi fi peut-être yalla def na né duñu dañu dul dem fa né

waaw maanaam dem ci nit ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg wan seen jaar-jaar diggante ñoom ak Seydi Hadji Malick du mel ni góor gi alaaji baaba Jong bi ñu jël def ko parrain wu université populaire bi ak Daouda Dia Mbëlëxe seen i famille seen i njaboot am na ay bind yoo xam ne def nañ ko jëmale ko ci donc ñoom la ñuy dem approché leen ñu jox ñu li nga xam ne mooy seen i documentation ñu euh, enrichir li nga xam ne mooy exposition du liggéeyu benn nit liggéeyu toute une la waaye du liggéey sax benn at waaw lii liggéey la boo xam ne euh, ça fait des années ñu ngi ci waaw nag ñu ngi koy commencé mine ndax day muñu dem sax ba routine lay doon parce que mine nañu yoon bi léegi mais ce sont des recherches euh, ce sont des recherches approfondies yo xamné def nañ ko pendant des années pendant des années te ay nit ñu bëri équipe la bo xamné ñi ñi ngi Dakar ñi ñi ngi Saint-Louis ñi ñi ngi am nañu sax ay membres yoo xam fu mu toll nii dañuy joggé ba Ziguinchor wa à travers suñu benn magu dara bo xamné mo moo coiffé loolu yëpp muy Mamadou Gueye mo ñuy orienté ci walu bobu ak Mamadou Faye mi nga président commission bi mais ce sont des jeunes qui sont un peu partout dans le Sénégal wa on essaie de chercher les informations partout sur le sur le territoire et même à l'étranger wa manam am tënkuñu السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله